sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawin nawaali lwaali wa radiyallahu an cheikhina wa wasilatina ahmad ibni muhammad ibni habibillah xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam gannaaw loolu bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xamante ne yéen ngi nuy topp ci seen télévision bu mag bi nekk fii ci jumaa ju mag yi muy GMT TV ni nga xamante ne noonu lañu ñu baaxoo ànd ak yéen ci ay jotaay mu de ay émission ak ay jotaay yi waxtaan ngir lépp rek gën di leeral ak di soññee ak di labiré ni ngeen ko baaxoo xamee seen jotaay bu mag bi nga xamante ne baaxoo ngeen ko topp ajjuma ju nekk muy ëttub xidma te ngeen miin cee ànd ak lool sunu mbokk cheikh Abdul bu soo alxaaji cheikh tey nag ñu wuutu ko ngir ñëw ci jàngat ak leeral ci kàllaamay wolof euh, xutba bi nga xamante ne moom la al imam cheikh Mouhamadul Mamoun Bousso xafidahullahu taala wa joxe tey ci ajjuma ji nga xamante ne moo mujj ci rakki gàmm te mooy al xutbatu rabia min rabia thani xutba bi nag laytaayaloon nañ ko ab bayaan muy waxtaan wu jiitu xutba bi moo xam ne sëriñ Afiya Ñang di jàngalekat bu mag boobu yàlla ko yàlla sàmm moo ko doon taxawee leeral ci ay ponk yu am solo bokk na ca li nga xamante ne mooy tax doomu aadama yi sax ci suuf te mooy lii tax bu nit ñi faatoo am ñu leen wuutu ca lañ doon def loola mooy lii taxawal ab société euh, mu tàmbalee ko nag ca denc soxna ak la ca war lépp ak la ca yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi rotal ci ay soññee waaye ci nan lañ koy tànnee ba àgg ci euh, boo amee ak njaboot bu la yàlla wërsëgalee ak njaboot ca soxna sa nga tànnoon naka nga war a taxawee yow waajur wu góor wi taxawaayu kilifa ci yilif waajuru doom ji ak doom ji ñoom ñaar ñëpp waaye itam leeral taxawaayu waajuru jigéen wi ca mu war a euh, yittewoo sàmm alali borom këram waaye tamit taxawu ko jàppale ko ci wërteefam bu mag woowu te mooy yar doom yi nga xam ne ñoom ñëpp moom lañu bokk séq mu leeral ca leeraleen yu am solo indi ca la nga xamante ne moom la ca boroom xam-xam yi jàngale ca ka ci jiitu mu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam loolu nag lu ñu war di waxtaane ak di ko fàttali saa yu nekk la ndax yàlla da ca dige ne képp koo xamante ne wàccoowoo ak warte foofu nga xamante ne mooy eh, sàmm sa njaboot yar leen teg leen ci yoon wi gën te mooy yoon wi jub su boobaa kooka day bu ëllëgee xalsan naa reccu ndax sawara la ko yàlla di yóbbu xambee ko fa yaa ayyuha alladina amanu qu wa ahlikum naara loolu moo war a tax tëkkoo tëkku suñu borom tëkkoo ci war naa tax mu nekk lu ñu war di waxtaane saa yu nekk di ci laabi rekk a fàttali nit ñi warteefu màgg wu am solo nga xamante ne ci e, warteef yi gën a mag ci la bokk bi mu jeexalee moom sëriñ Aafiya itam ci waxtaan wu leer wu am solo wu tawe woowu lañu def noddu ñaareel gi al imaam al xatib sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso yàlla na ko yàlla sàmm te gën koo dëgëral ñëw nag ci xutba bi nga xamante ne moom lañuy ñu bëgg gën a indi ay leeral ak ay jàngat eh, ci ni mu gën ko ci wolof ngir njariñ li gën a yaatu ni ngeen ko baaxoo xamee ti ci ànd ak Sëriñ Abdou Khadir Bousso mm, ci leeral gi sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso al imam ci xutba bu njëkk bi ni ab xutba di mel ci fiq nga xamante ne dañ ne xutba dañoo bëgg mu am ay ponk yoo xamante ne ñoo koy tabax noonu ñu ko jàngalee woon euh, feeñ na ci xutba bi te la ci jiitu mooy ubbee ko sant yàlla mi nga xamante ne mooy borom jaam ñëpp euh, julli ci yonente bi ñaanal ko sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa ba noppi fàttali nit ñi warteef ak li yàlla di digal leen te di ko xaar ci ñoom ñu jëf ko te loolu mooy tax mu wàcce leen fii ci kaw suuf bu leen fàttalee loola waar leen waar gi mën naa séddaleku ci ñaar mooy digg leen wala tëkku leen ndax xam ñaar rekk moom la ñuy moom la yàlla di def ca eh, alquranul karim suy wax ak eh, jaamam ñi mooy dana leen digg ci bégal leen ci ne ku topp li ma koy digal bu ëllëgee lii mooy ak payam loola kat sunu boroom subhaanahu wa taala lam ca jublu ca diggooga mooy bégal ña nga xamante ne ña nga muñ ay noflaay not seen bakkan teg seen tànk fa leen ko borom bi subhaanahu wa taala tegloo di góor góorlu seen kem kàttan ca la mu digle waaye di wattandikoo ko sori la mu leen tere ñooña nag da leen di bégal léegi-léegi mbégtem wax le dig leen ne leen bu ngeen defee lii lii mooy cay seenu fay waaye itam léeg-léeg mu xëpp leen ngir jàjj leen ñu wattandi ak sàggan ndax nit dafa def ku mën a fàtte def ku sàggan def ku doyadi ba tax léegi-léegi mu wàcce aw yoon waaye su wàccee aw yoon rek da koy ay ne ko ee eh, yaa ngi wàcce aw yoon foofu nga jëm kat la nga fay fekk du dëppook la lan gënal te du la neex foofu ngay nga jëm sawaraa fa lay xaar ak ñàkk li gën a nekk koomte ci li nit ki mën a am ci digganteem ak boroomam te mooy njëggalu yàlla ak yermandeem nga xamante ne moo ëmb lépp lu nit di wut ak bëgg loola ay tëkkoo la yoo xamante ne léegi-léegi des na ko def ci ak waaraate ngir jàjj nit ñi xamal leen ne leen bu ñu nekkul ca yoon wa la leen ca mën a fekk lii ak lii la kon xutba bi am na lu mel noonu waaye itam am na ñaan am na ak ñaan ndax xutba itam eh, ñaan ca lu ñu taamu la ñaanal eh, ñaan ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu jéggal nit ñi yërëm leen waaye ñaan ñaan gu ñu mën a ñaan rek gu gën a gu baax gu nekk waaye li ñu sedd ci xutba bi mooy imaam bi dafa ñaan ndimbalul yàlla ak njëggalam ñaar yooyu nag jàpp naa ne eh, ci la lépp nekk xëy na danañ ci dellusi bala ñuy jeexal <coughs> bu ñu dellusee ci xutba bu njëkk bi ginnaaw bu al imaam sëriñ Muhammadul Mamoun eh, eh, sante sunu boroom waaye sant gi dafa ànd ak li ñuy wax asana mooy cant gi da koy sant wan ne ko mooy boroom waaye itam di ko tagg lam ko taggee mooy xamal ko ne ko moom daal mooy buur bi mat boroom moom rekk waaye itam wan ko kàttan ak doole ji nga xamante ne moom la am mu nangu ko ndax sunu boroom subhanahu wa taala mooy boroom lépp moo tax dane ko yow mi nga xamante ne daal sa yërmaande ak sa xam-xam fees nag fépp daj kàpp àdduna wër ko yow de yelloo nga gépp cant ndax àdduna bi yépp ci sa mbaax gi ak sa teraanga yu bari yi ak sa lawet gi ci lañuy xéewu muy wax ju dëgg ndax yërmaande yàlla ji mooy tax ñépp di am jàmm moo tax ñépp di nekk ci anam yi aw nekkin woo xamante ne xëy na jàpp nañ ak nit noonu la war a mën a dunde te loolu e, mooy ca arrahman rek bu ñuy wax bismillahi arrahmani arrahim arrahman mooy yërmande yàlla joo xamante ne nit ñëpp nit ñëpp la ko boole yamale moo xam ñi nga xamante ne dañ koo nangul di def la mu digle di bàyyi la mu tere moo xam ñi nga xamante ne dañoo jaar feneen dañoo jaar waneen yoon xàll seen yoonu bopp fépp lànk bañ topp li leen yàlla digal ba mu taggee yàlla ca loola wax ko loolu nga xam ne wax ju dëggu la dafa daal di nag seede ne amul benn buur bu dul boroom boobu nga xamante ne xam-xamam akuk tabeem ak teraangaam akuk lawetam ci la àdduna bi cëpp jagee te ñëpp ci lañu xew waat naa ne waaye maa ngi seede ne yow rekk yaa mat buur te jombante nga kenn di la bokkaale ak lenn ndax yeyul yellul jaaduwul ci buur bu màggee noonu kenn di ko bokkaale ak lenn kon mu kennal ko wan ko yow rek yaay boroom waaye daan nag seede ne yónnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mooy ki yàlla yónni tànn ko mu nekk ab jaamam waaye nekk ndawam loo xamante ne moom la yónni ci jaam ñëpp yónnte bi nga xamante ne ar rafi al maqam boroom daraja ju kawe la ju kawe-kawe fa boroomam eh, yàlla na yàlla dolli xéewal ak mucc ci moom waaye def ko ci mbooleem ñi nga xamante ne ay gindiwukaay lañ gannaawam te bokk ci njabootam sallallahu alayhi wa ala alihi al alam ñi nga xamante ne ay jindiwukaay lañ nga xamante ne ñoo jàpp ñoo wut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci di saytu am njàngaleem di ko leeral di ko yaatal ba képp ku bëgg a gindeeku dara du la ump ca loola boo sukkandikoo ca ñoom la ñuy wax bu noppee ca loola nag la daal di tàmbali waar ga la ci jiitu mooy fàttali nit ñi ak ragal yàlla ittaqullaha fii ma amar mu wax ne yéen nit ñi yéen nit ñi ragal leen yàlla ci limu leen digal ragal leen yàlla ci limu leen digal loolu nag sëriñ bi eh, soññoon nañu ci jàngal ñu ca ca mun a wéru sudur ci wax ñu ne ñu ndigali yàlla yi dañ kaa war a fexe ba góor góor lu ci jëf ko ndax jëfe ndigal dafay lu am solo ndax saa yoo jëfe ndigal yaa ngi def lu am solo ndax saa yoo jëfee rek def nga lu la yàlla digal waaye bàyyi nga lu la yàlla tere ndax safaanub la nga jëf soo ko jëfoon euh, dangaa def lu yàlla tere waaye def gi nga def ndigal sorale na laag defub tere moo tax mu ne ragal leen yàlla ci li leen yàlla digal loolu nag lu am solo la ndax li yàlla digle euh, te gàddu ca ab gàll ca ab yar te yar ba nekkul bu teew képp koo xamante ne gëmee nga ko noonu ba tax la la yàlla digal nga gëm ne yàlla ko digle te lu ñu war a def la nekk ca di ko def kooka daa ragal yàlla daa ragal yàlla ndax nangu na la nga xamante ne moom la ko yàlla digal waaye gëm na lam ko ci dig ci yar ba nga xam ne mën na caa teg wala ay daan yi nga xam ne mën na ko caa fekk ca ñàkk jëf ga kon ragal yàlla ci li mu mooy sax ca aw ca bañ koo wàcc benn yoon mu ne boo defee ragal yàlla ci lim leen digal nag wantahu amma anhu naha wa zajar na ngeen wattandiku daw bu baax li nga xamante ne moom la yàlla tere te euh, jàjje ci jàjje ci mooy euh, tëkkoo ci rek wan leen lii ab jàjj la maanaam dig digal leen ne bu ngeen defee lii nga xam ne moom laa leen tere su ngeen defee ak matadik doomu aadama ba tàbbi ca te tuuboo leen ko la leen cay fekk mooy daan yàlla te mooy mbugalam te mbugalum sunu boroom subhanahu wa ëpp naa tàbbi kon loola ak jàjjee la moo tax sëriñ Mouhamadul Mamoun al imam wax na na ngeen wattandiku tere yàlla yi nga xamante ne tere nag tere na ko waaye jàjje ci daan képp koo xamante ne ragal na yàlla yàlla dana far ay bakkaaram ay ñaawteefam te dana ko defal ab yool bu rëy rëy fa innahu wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra waxi sunu borom la jum wax ca alquran ne képp koo xamante ne ragal nga yàlla yàlla dana la defal yaari ba ci jiitu mooy faral la ay ñaawteef ba noppi jox la ay may yu rëy defal la tuyaa baju ju màgg màgg ju rëy kon ragal yàlla day mel ne mbooleem li nit ñi di wër ak sàkku fa seen boroom ci moom la nekk yemul ca loola sunu boroom daal di waxaan ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib mel ne képp koo xamante ne sunu boroom ne képp koo xamante ne ragal nga yàlla yàlla dana la wutal bunt boo jaar ba génn ci xat-xati àdduna képp koo xamante ne daa am loo loo ragal adduna jatt la saa yoo bëggee buntu boo jaar bàyyil xel sa diggante ak sa borom ndax li daj kapp adduna bi ci ay jafe-jafe tey dal nit lépp jeexiite jëfam rekk la ndax zahara al fasaadu fil barri wal baxri bi ma kasabat aydin naas adduna bi yàlla da koo jagaloon ba mu jag defar ko ba mu laab mu wàcc ñu fi digal ñu tere ñu dig ñu tëkku ñu am ñoo xamante ne nag wàcc yoon wa ñu wàcc yoon moo jural taq-taq ak jafe-jafe yi am ci àdduna bi yépp kon moo tax yàlla ne képp koo xamante ne ragal nga ma te mooy dellu nga gannaaw ci ak tooñ te teg sa tànk fa ma la ko tegloo bàyyi ma xel man sa borom ragal ma kennal ma dinaa la wan aw bunt boo xam ne fa ngay jaar ngir mucc ci xat-xate àdduna yi maa lay wutal bunt booy génnee ci jafe-jafe àdduna bi waaye nag duma ci yem dama lay wërsëgal wërsëg woo xam ne sax doo ko njortu doo xam fu mu jóge waaye fi man sa boroom mi nga xamante ne yaa ma ragal nangul ma maay ki la koy jox ndax li nekk ci diggante asamaan ak suuf lépp di wërsëg man borom bi subhanahu wa taala maa ko moom te maa koy joxe te ñi ma neex rek laa koy joxe ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xamante ne ñoo ma ñoo ma topp kon loolu lu am solo la mu boole ca nag daan ne wabaadiru bi taw ba loolu nag lu am solo la mooy na ngeen gaawantu ci tuubal seen boroom li tax mu teg ko ci fii mooy képp koo xamante ne yëg nga ne def nga lu defuwut wàcc ngaaw yoon ba tax ngay tuub kooka ak ragal yàlla des na ca moom moo tax mu mel ni ñi nga xam ne ñoo jàpp ne ñoom sànku nañ ndax lii muy wax kan naan ragal leen yàlla bu ngeen ko ragalee lii moo leen cay fekk ñu jàpp ne ragaluñ yàlla ndax def nañ lëf mooy leen déedéet walbatiku leen tuubal seen boroom su ngeen ko defee yàlla dana leen dana leen jéggal waaye dana leen wërsëgal dana leen xéewale ca xéewam ya ndax astaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi waxaan na feneen ne faqul tustaxfiru rabbakumu innahu kaana gaffaara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidukum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara yàlla nee na tuub leen su ngeen tuubee xéewal yi nekk ci asamaan ma jox leen ci ba ngeen doyal jox leen ay njaboot jox leen alal jéggal leen loolu day ku matut buur mat boroom mënoo ko te yàlla lépp lum diggee dana ko def ndax innahu laa yuxliful miaad mu ne gaawantu leen tuub qablan xilaaqi baabiha njëkk ñuy tëj buntub tuub xam ngeen nit ki yàlla dana ko ci yërmandeem dina ko may euh, lépp lum def ci njuumte mu mën koo tuubal boroomam mu mën koo tuubal boroomam waaye am na ci foo xam ne bu fa eggee dootul mën a deltu gannaaw dootul mën a tuub ndax bu boobaa day fekk bay wey mbuus mu ne nag bala ngeen egg ci foo xamante ne yàlla dana leen tëjal buntub tuub ba du ngeen mën a jéggulootu yàlla du ngeen mën a tuub tuub gu yàlla nangu nangeen gaawantu ci tuubal yàlla bi ngeen koy tal ndax su ngeen demee ba talatu leen ko wala bu ngeen demee bañ tëjal leen buntub tuub su boobaa rëccoo fay sës te rëccu saa yu nekk day fekk jëf fees loo tax mu ne na gaawantu ci tuub njëkk ñuy tëj buntub tub mu ne na ngeen gaawantu itam ci jëf lu baax njëkk muy faat ndax nit dana egg ci dana toll ci barab boo xamante ne day féex man faa def lu bari ci ak jaamu yàlla waaye mën naa dem ba ak tele dikkal ko moo tax soo manee mu ne nga góor góorlu ci jëf yu baax yi balaa ak mën a dee dikk wa bil amali solihati xabla fawatiha mu teg ca nag soññe ak ku laabiire muy wajtahidu fi taati wal amali solih yéen nit ñi farlu leen wogu leen góorlu leen ci topp yàlla topp yàlla mooy def li mu dige bàyyi li mu tere ndax diine li muy bari bari li muy néew néew ñaar rekk moo ko tënk mooy jëf ndigal bàyyi tere loolu nag mooy ataa mooy ataa wala amali saalix na ngeen jëf lu baax jëf lu baax itam eh, da dara génn ci dara génn ci jëf lu baax ndax nit ki loolu tax yàlla di wax alladina amanu wa amilu saalihaati amanu mooy wax nañ ne gëm nañ yàlla loola eh, lu ñuy fas ci ab xol la di ko di ko di ko di waaye nag la koy dëggal mooy jëf ko ci ay cër mooy wa amilu saalihaati Euh, moo tax mu ne na ngeen topp yàlla waaye na ngeen saxoo jëf lu baax loolu nag mu dëggëralee ko dëggëralee ko ci ab ayab alquran boo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala da ci soññi jaam ñépp di leen ci euh, di leen laabiire ak di leen digal ñu topp ñu gëm ko te def lu baax mooy qul li ibadiya alladina amanu yuqiimu salaata wa yunfiqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya min qabli an yaatiya yawmun laa bay'un fiihi wala xilaal sunu borom subhaanahu wa ci aya bu màgg boobu day wax ne yéen ñi nga xamante ne yéen yéenay sama jaam ñi te kenn génn ci yéen ñi nga xamante ne yéen a nangoo topp li ma leen digal te mooy gëm ne man maay buuru bu mat boroom na ngeen def lu baax mooy na ngeen julli taxawal julli loolu ci jëf lu baax la bokk waaye na ngeen di joxe ci seen alal ji ma leen wërsëgal te dénk leen ko man sunu borom subhaanahu wa taala ndax lépp yàllaa ko moom képp ku mu wërsëgal digal na la ca nga joxe ca dimbalee ca loolu itam dafa dugg ci al amalu saalix te mooy jëf ju baax waaye la ngeen di joxe na ngeen ko joxe ci sutura joxe joxe ko joxin woo xamante ne eh, kenn keneen du ca am aw yoon na waxoon ca suratul baqar ci ne ni ngeen fexe ba li ngeen di joxe te yàlla rekk tax seen ndeyjoor bi koy joxe bu ko seen càmmoñ bu ci seen càmmooñ amu yoon bu mu ko yëg waaye sax euh, bu leen neexee itam dee leen joxe ci ak fes dee leen fesal li ngeen joxe ndax fesal li ngay joxe itam mën naa am njariñ lu rëy bokk na ca rek nit ñi toppandoo la ca def lu baax loola moo tax léegi-léegi jëf yépp mën naa bañ a joxe ca kaw wala joxe bu fees mën naa bañ a doon ngistal waaye mën naa sax nekk lu gën bu fekkee ne ki koy def da caa jubloo soññee ñu ci lu baax moo tax yàlla soññe woon na ca suratul bàqar ne bu ngeen joxee te nëbb ko danaa leen defal xéewal yu bëree bëri wa fu tuxfuha wa tuutuha alfuqara loolu la yàlla wax ne bu ngeen ko nëbbee te jox ko ñi ko aajowoo dinaa leen ci fay-fay gu rëy waaye fii tamit nee na sirran wa alaaniya bu leen neexee ngeen suturaal ko def ko ci suuf kenn du ko yëg waaye bu leen neexee itam ngeen fësal ko waaye na yàlla rek di tax saa yu nekk loolu nag la tax mu koy wax mooy na ngeen ko def balaa moo faat mooy balaa yowmal a ñëw min qabli an yaatiya yowmun laa bayun fiihi wala xilaal njëkk adduna di tukki ndax bisa ngi ñëw boo xamante ne kenn du jaay kenn du jënd su boobaa nag def lu baax day jeex mooy li sëñ Modou mun doon leeral ci kaw ci wax ne na ngeen def lu baax balaa muy faat na ngeen tuubal yàlla bala ñu leen a tëjal bunt bi moom daal di koy tëje nag ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala daan ne ko ñu ngi lay ñaan yow suñu boroom nga dimbali ñu waaye def ñu ñuy dégg ak waar te di ko topp loola lu ama am solo la mu mel ne liñ doon jàngat ci wane ne ab xutba noonu la war a tënkoo noonu la war a mel day mel ne leeral na ko ba mu leer loolu la gën a dëgëral rek ci ñaareelu xutba yi itam bi mu ci ñëwee ci fàtteloo nit ñi àdduna ju ñàkk solo ji ak di leen ko bàyyiloo xel daal di wax ne képp koo xamante ne teral na àddunaam jox ko yitte jum joxul àllaaxiram xalsan naa réccu moo taxoon bi doon wax laa tashtari dunya bi uxra yaa man baa nuuran bidduja fa sa damu bul jaay sa àdduna mukk bul jaay sa mukk jëndee ko àdduna ndax àdduna day jeex te alaaxira kër guy sax la wala daarul laaxirati xayrun wa abqa moo tax mu ne man karumat alayhi dunyaahu haana alayhi diinu képp koo xamante ne jox na yitteem jëpp àdduna wala li ëpp ci te mu jox ko àdduna kooku de doyal dal na diineem doyal dal na diineem mooy xalsan naa perte bu ëllëgee yowmal xiyaam wa man xalaba alayhi hawaahu dan fa laa maxaalata yaqiinu képp koo xamante ne dafa doyadal néewal doole eh, yaqiinam te teg ko ci rek eh, jël banneexu bakkanam topp ko notal ko ci ak bëgg-bëggam ak jëfam kooka day xalsan naa ñàkk yaqiin te mooy eh, ngëm gu dëgër ak jëf lu ba la joo xam ne moo koy tax muy mën a jëf lu baax topp ndigal yàlla yi di bàyyi tereem képp koo xamante ne gàttal na ab gis-gisam ci rafet rafeti àdduna yi rek nga xamante ne day mel ne fay gu teew la ku ca tënk léppam xasira waxaab kooku day perte na te sooy na bu doon rëbb sooy na jëmul dara képp koo xamante ne jiital na addu allaaxe addunaam ci allaaxiraam képp koo xam ne jiital na allaaxiraam ci addunaam kooko day dana texe yàlla dana ko defal mujj gu rafet mooy wa man qaddama minha maa yajiduhu fi l ajila saida wa faaza bi xusni l loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci te mooy xaddis boo xam ne sëriñ Mourou Mamoun indi na ko ci xutba bi ngir dëgëree la ko li muy wax mooy yonent bi dafa wax ne man ahabba dunyaahu abarra bi axirati képp koo xamante ne addunaam gënal na ko alaxiraam sànq na fayuk ëllëgam wa man ahabba képp koo xamante ne nag addunaam alaxiraam gënal na ko addunaam mën naa dajeeg tënki tëkki àdduna mën naa dajeeg ay jafe-jafeem waaye jafe-jafe yoo xam ne wér na la ne day jeex te yaa ngi jëm ca fay goo xamante ne eh, du jeex luy sax la lu yomba muñ la ci ku gëm yàlla te nangul ko moo tax mu tëjee ko ab aaya bu am solo muy saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin na ngeen gaaw gaaw gaawantu góorgóorlu jëm ci yërmande yàlla te mooy njëggalam te gënal fayug yàlla gi nga xamante ne mooy ajjana ja nga xamante ne moo ëpp li ngeen di gis ci àdduna euh, nga xam ne ajjana jooja ñam ko dig mooy ñi ko ragal kon dellu siwaat nañ bu baax a baax ca lam jiitaloon te mooy ittaqullaha fi ma amar mel xutba bu ama am solo la boo xamante ne saa yuñ ko déggee te yóbbuloo ko mu nekk fàttalik ay bis gi ñu fas yéene li ko dalee tey ji ci ajuma ji ba ajuma ji dellu ñu fexe ba suñ jëf yépp ñu dëppale kook ndigal yi waaye fexe ba lépp loo xamante ne ak waar laa ko jàjji ñu fexe ba jël ko di di ci di ci fàttali suñu bopp di ci jàjju loolu buñ ko defee li taxoon xutba bu jóg danañ ko am te mooy defaru tey ak bu ëllëgee ñu ngi waaj a egg ci jeexantalu waxtu wi kon dañuy yëkkati jotaay bi di ñaan yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala mi nga xamante ne lépp ci loxoom la nekk mu wërsëgalee ñu ñu gëm ko te ragal ko waaye dimbalee ñu ñu nekk ay jullit yoo xamante ne dañuy jëf ay ndigal waaye di bàyyi ay tere di ko wattandiku te la mu digee ca ku jëf ndigal bàyyi a tere lépp yàlla na ko wommat jox ñu ko ñu jëfandikoo ko ci jaamoo ko moom borom bi subhaanahu wa taala bu bu du ñu bokk ca ñey reccu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba ajjuma ak jàmm ci seen jataay bii di ëttub ñu ñëwaat ci beneen xutba ak yeneen i jàngat incha taala